vous avez je sais pas da am benn benn un problème personnel ak ak Momar Ndong oui xam nga tamit man association de consommateur la bu ñu xasee association de consommateur yi man dañ ma ciy boole mënuñu ma koy génnee ma gisee benn association de consommateur boo xam ne day jouer un double jeu nekk di wutal boppam. mais comme waaw comme ku ñu reconnaître quoi yow reconnaître ñu peut-être. non man reconnaître reconnaissance c'est-à-dire que ñun reconnaissance ah, état bi reconnaître nañu banque yi on discute avec les directeurs généraux de banque. parce que problème bu amee ñun ce qu'on fait. Mhm. mooy on écrit au directeur général de la mhm. banque. le directeur nous répond nous reçoit parfois on discute sur des problèmes et il y en a beaucoup de problèmes que nous avons résolus comme ça à l'amiable. Mhm. booy xool ñun li ñuy li ñuy ñaxtu yëpp am na ay banques yoo xam ne mosuñu leen laal. c'est parce que banque yooyu dañoo am euh, benn genre du partenariat parce que nous ne pouvons pas partenaire à ces banques mais dañuy am répondant c'est-à-dire que saa yu ñu amee réclamation wala plainte boo xam ne dafa jóge ci usager mhm. bu ñu ko posé banque bi automatiquement day réagir donc ñooñu jarul ñu leen di attaquer parce que ñu ngi jël en charge le service réclamation correctement mhm. mais banque boo xam ne danga nekk dans la délinquance financière dans le banditisme nga ne da ngay taxaw supprimer guichet unique sa yoon newul ci sénégalais yi jéemoo xool seen i coono désormais koo xam ne ci banque boobu nga ibbee euh, sa compte agence bi nga ibbee sa compte géejewaay boo demee ba Pikine dootoo fa mais banque yu mel noonu jaay doole la ñuy def. mais ñuy wax ñu ne ñu dem ak ñoom tribunal mais benn manque de sanction dëgg ñun moo tax mënuñu jubóog waa banque centrale. waa banque centrale ñoom ñoo war a ñoom ñooy régulateur ñoom ñoo war a jël ay sanctions. mais banque centrale mës ta jël sanction la preuve 19 mesures de gratuité bu ñu ko génnee ñu ne SMS. bu ñu lay envoyé sa portable dafa war a doon gratuite mail bi dafa war a gratuite mais SMS yi ñu ngi la koy facturé ñu ma koy ah, facturé ñu koy facturé keneen te dafa nekk banque centrale moo ko bind mu leer banque centrale ñun identifié nañu les banques ne ko yii da ngay jël sanction contre ces banques là mais banque sanction banque euh, mosul jël sanction moo tax ñun nag mais mais mais pourquoi duñu sanctionné lan moo tax bon faiblesse c'est-à-dire xam nga tamit ces banques là ont des lobbying très jàpp ni boo boo ci jël lobby international la aloo alors banque centrale bii di régulé c'est huit pays pauvres de l'UEMOA est-ce que mën nañ jël sanction ci ces banques là je ne pense pas ñu naan ñun wax nañ ñun ñu ngi jël ay sanctions mais duñ ko publier ñu ne la non écoutez da ngeen di jël sanction yoo xam ne euh, vous donnez l'exemple aux autres banques pour ñu bañ a dugg ci yenn yi léegi nag ñun de connaissance am nañ ko état du Sénégal daf ñuy convoqué ñuy waxtaan ak ñoom bu ñu leen bindee ñu tontu Euh, banques yi ñi bëgg ñi bëgg parce que ñi nga xam ne dañuy doxal yoon. Hmm. ñi nga xam ne dañuy doxal yoon. ñoom ah, ñu wax ak ñoom état du Sénégal reconnaître la mais association bi yow ko yaa fa ne yow ko yaa noonu. non ñun dañoo am dañoo am bureau dans tous les départements. dans ah tous les départements dans toutes les régions ñëpp sama portable ba pare say groupe day am bureau ba pare mu am groupe WhatsApp. mais est nekkul ñi nga xamante ne mooy frustré yi nga fay frustré am na ñoo xam ne dañoo am problème affaire